waaw maa ngi nuyu salaamaaleykum suma mbokk wolof yi may déglu um, uh, cette version c'est pour euh, je vais le faire en wolof pour parler avec euh, nos amis euh, du Sénégal qui parlent wolof et nos amis francophones um, parce que la première vidéo je l'ai fait en anglais il y a certains qui me suivent qui sont amis à moi on est ensemble sur Facebook mais ils comprennent pas malheureusement l'anglais donc bi dama koy wax ci olof pour suma mbokk yi may déglu te nga xam ne dégguñu anglais te moom la doon wax sànq pour li xew suñu élection yi fii ci Amérique ndax xam naa ne doomu Sénégal yi fu ñu nekk tey ci àdduna bi ñu ngi xalaat seen doom yi nekk fii ci Amérique di jaaxle ndax yaakaar euh, ndax li xew fii ndax Donald Trump li mu nekk président te ñu dégg ñoom ñëpp ci élection yi li mu fi wax ci immigré yi ak suñ mbokk yi fi nekk te amuñu kayit nga xam ne ñu ngi dimbale mbooleem seen mbokk yi nekk Afrique di leen jàppale ñu ci bëri yor famille foofu euh, di contribuer ci suñu économie foofu ci Sénégal ak yenn dëkk yu mel ni Gambia et cetera donc am nañ ñoom aussi droit laajte question yi lu war a xew ëllëg ndax euh, li xew fii euh, yëngal na fi nekk ni pas seulement kese waaye àdduna bi lay wax. donc dama leen bëgg expliquer rek li tax li am fii am pour ngeen mën a comprendre euh, détails yi maanaam li tax Donald Trump mën a nekk président fii Amérique ak li tax Hillary Clinton ñàkk élection yi première chose mooy dafa am lu ñuy wax mooy latino vote maanaam espagnol yi fi nekk nga xam ne euh, dañu leen a yaakaaroon ne dinañ génn ñoom votel Hillary Clinton parce que ñoom ci 2000 huit élection yi Obama gagné woon espagnol yi bëri nañ fi bëri boo xam ne léegi 32 pour cent lañ ci élection électoral bi démb cinq pour cent kese ñoo génn votel Clinton en 2012 ak 2008 71 pour cent ñoo votaloon Obama donc gis ngeen différence bi entre cinq pour cent ak 71 bien que Donald Trump lu nekk wax na ko. Euh, latino yi espagnol yi ne leen leen di delloo seen dëkk ñii ne leen leen di bildal lu ñuy wax wall benn miir pour que ñoom duñu fi ñëwati ñuy jot jaar côté Texas te dugg fii ak Arizona nee na dana déporter ay immigrants yu du jeex pour delloo leen seen réew waaye taxut ñoom 29 pour cent ñoo mujj votel Donald Trump moo tax mu gagné état bu amoon importance pour xam ne Clinton daf ko doon a gagné mu ñuy wax Florida beneen point bu ñaareel bi mooy. les minorités noirs américains suñu mbokk yi fi nekk du ñun ci lañ bokk noirs africain yi aussi bi Obama ñëwee 2012 93 pour cent ci noirs yi ñoo ko votel démb ci guddi 88 pour cent ñoo génn ci noir yi pour votel euh, Clinton loolu tax aussi mu ñàkk bokk na ci point yi tax mu ñàkk élection yi ndax état bu nekk mel ni Pennsylvanie dañ ko waroon a gagné pour mën a gagné. mais Pennsylvanie ñëpp xam nañ ne tubaab ñoo fa ëpp benn ville bi nga xam te ni moom lañ fa mën a gagné pour gañee ko mooy Philadelphie te taxut Philadelphie ni noir yi gën a matul lim amoon ci Obama pour mën ko gagné dem c'est impossible donc noir yi aussi génnuñu vote bien que Donald Trump 3 pour cent 30 euh, ñi ko voteel ci noir yi 8 pour cent la waaye terewul moo gagné élection yi. démb parce que noirs yi voté wuñu espagnol yi voté wuñu beneen troisième point bi li tax mi ñàkk mooy li ñuy wax les millennials ici aux États-Unis mooy xale yi nga xam ne 18 ans lañ am ba 30 ans kenn óolatu ci politiciens yi fii ci réew mi dafa am beneen affaire boo xam ne xale yooyu nañu voté mooy ci primaire yi seetaan ngeen lu fi amoon Hillary Clinton contre beneen candidat bi ñu amoon ci démocrate bi ñu wax Bernie Sanders Bernie Sanders jeunes yi àndoon ak Obama yépp ñu ci bëri ci moom lañu àndaloon xale yu ndaw yi parce que message am moo taxoon waaye ñi jiite parti bi suñu parti bi fii dañu àndoon ak Clinton ci suuf di ko xeex gisoon ngeen mail yi ci Wikileaks yi ba fexe ba moom mu mujj nekk candidat muy Hillary Clinton ñu gagné nangu élection yi ci Bernie Sanders xale yooyu ko votaloon nag kenn gënu ci genn wàll yëpp génnuñu voté al démb Clinton donc boobu mooy ñetteelu point les jeunes ñi waroon a élire candidat bi génn ñu voté ñeenteelu point bi mooy côté li ñu wax wóolute trust confiance nit ñi fii amuñu confiance ci Clinton parce que dañoo gis ne koo xam ne la dafa yàgg ci politique euh, li muy wax gëmu ko am na problème yu bëri ci problème email yi nga xam te ne daf ko làqoon daf ko ci email personnel mi benn la ci problème mu euh, Libye li fa xewoon euh, ak dem si yàlla si président libyen bi ñu reyoon muy Kadhafi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu bëri yaakaar nañ ni ñu ko reyoon du yoon surtout que ñun africains yi baaluñ ko ko woon. beneen problème bi nekk ci trust bi mooy problème ISIS ak li xew ci àdduna bi ci insécurité nga xam ni bi muy am moom moo nekkoon secretary of state donc américains yi ñu bëri wóoluwuñ Clinton euh, juróomeelu question bi mooy bi mujj bi mooy. dafa am ci démocrate yoo xam te ni ak républicain yi même euh, bëggatuñ dara ci politique bi fii moom la ñuy wax the silent supporters of Trump duñ génn mukk du la wax ne Trump la àndal mais bi ñu demee bi pour voter parce que ñaari candidat yi ñu jox ñëpp benn baaxu ci muy Hillary Clinton ak Donald Trump donc américains yi voté bu ñu demee pour voter dañu am lu leen métti parce que dañ naan ok ñun. ñu ci bëri man suma xarit yi j'ai fait vingt et un états boo xam te ni dama tukki New York ba Louisiana ci suuf ñëwaat encore jaar Arkansas Texas ñi ma dajal lépp benn wax lañu may wax mooy que man suma dem bay voter sax damay voter contre la personne mais duma voter pour kii parce que ñaari candidat yi ñuy jox yépp insulte la pour ñun suñu intelligence fii ci dëkk bi donc ñu ci bëri si ñoom bi ñu demee pour voter dañ naan ok puisque Donald Trump moom nga xam ne nekkutoon ci campagne yi duggutoon ci politique businessman loon te réussir na ci business te nekkul ci Washington dañ dañ dem ba jéppi politiciens yi moo tax ñu voter ko ak nit yu weex yi nga xam ne raciste lañ ñi nga xam te ni seen bu ñuy reer seen kër yi ak dëkk yooyu la ñuy wax lu bon yi ci noir yi ci espagnol yi te ñemewuñ ko wax ci biti parce que c'est pas politically correct Donald Trump message boobu moom la génnee pour ñoom. ñu mën ko topp moom la may wax ci tale bi parce que il est pas politicien te lépp lu mu wax ñoom moom la ñu ñoo ñu génn teg ci basam ñu génn votel ko donc du parti démocrate ñoo voté contre moom mais du aussi républicain yi ci boppam ñoo ko votel non non Donald Trump mouvement moo ko votel ñoo xam ne ils sont maintenant anti establishment ñoo ñëw créer beneen euh, beneen euh, vent wu politique ci Amérique comme li xewoon 2008 ci élection présidentielle aux États-Unis moo xewaat fi mu nekk nii mais juste ci beneen côté bi Barack bi muy ñëw kenn gëmu ko dañoo gëmoon ne dañ koy indi koo xam te ni gëmatul Washington gëmatuñu Washington outsider indi ko def ko président moom aussi la même chose Trump noonu lañ ko def c'est-à-dire que pour l'instant ñi ñu ko def mooy les républicains fa fa far the other side maintenant. léegi qu'est-ce qui va se passer comme que élection yi jeex na tey ñu bëri xam naa ne ci yéen nelaw leen yéen am ngeen lu leen metti parce que xamu leen lu war a xew la ndax seen doom yi fi nekk dara du xew rien ne va se passer donc bu leen décourager euh, Amérique yi bokkut ak suñu réew yi ci Afrique parce que président mënul xëy rek lu ko neex mu def fii ci biir réew mi. Obama dafa waxoon ne bu ñëwee dana wàññi déportation bi illegal immigré yi ñuy delloo seen réew. man moom laa liggéeyal macha allah li mën def na ko lu nekk def na ko ci réew mi mais ba mu toogee ba léegi Amérique 2009 ak léegi Obama million millions 400 mille personnes la déporté la envoyé waat seen réew moo ëpp ci président bu déporté ci immigré ci àdduna bi fii musul am ci Amérique te pourtant ñun bu ñuy nekk élection 2008 2009 daf ne woon bu ñu ñëwee danañ fexe ba immigré yi fi nekk ñu jox leen kayit mais Obama li mu déporté amul beneen président ci Amérique. bu génnee immigré yi amul kayit seen réew donc pour wax leen ne yàlla moo fi nekk keneen nekk fi ni ñu gëm yàlla parce que kenn moo ñëw nekk président rek nekkul ne bon la vie c'est fini c'est la fin du monde non non non c'est pas ça ñuy wax ne dañuy takk seen bagage pour dem toxu ci euh, Afrique wala ñu dem toxu ci Canada bu ñu ko defee ñàkk ngeen fay quoi parce que fi réew mi ñun ñëpp ko bokk. muy africain muy espagnol ñi fi ñëwoon ut si yëpp am fi kayit ak am fi ñàkkul kayit benn nit nekk président c'est pas la fin du monde la vie continue que que ku nekk dellu si liggéey bi nga nekkoon bu élection yi jotatee nañ bokk ci élection yi xeex que africain am fayda bokk ci li fi nekk parce que il faut ñu bokk ci système bi mën ko changé mais mun mënuñu rek bàyyi ñeneen di ko diriger parce que noirs yi fekkoon génn nañu voté bokk ci affaire yi tey lii tey du am donc. bu kenn yaakaar ne seen doom yi nekk fi dañ leen di déporté loolu mënul nekk wax nañ fi danañ def wool bi ñuy bi def ay euh, Arizona c' est impossible ils vont pas le faire parce que amuñu xaalis bi ñu ko defee pour déporter dis ay nit ça coûte beaucoup d' argent sëgam Obama mi démocrate moo fi toog million cinq 500 mille personnes mu leen di delloo seen réew te taxul kenn yëg ko waxuma la ak Donald Trump léegi comme que coow lu jeex na ñëpp dañ dañuy delluwaat seen liggéey fii Amérique. ku mës ku toog loo bon bon ci wax jeeg nangam nangam dégg ngeen Donald Trump lu mu wax demb damay fexewaat ñëpp ànd pour ñu liggéeyal Amérique ñoom seen réew mi ci lañ gëm c'est des patriotes lu mu métti métti gis nañ fi Bush deux fois et fin du monde pour ñu am George Bush il fallait ñu am Donald Trump pour ñu am Donald Trump il fallait ñu am ku mel ni Obama ci lu baax ci liggéey ëllëg ku mel ni Donald Trump bu fi jógee ñu am ku baax ku mel ni Obama mu ñëw. c'est pour vous dire que yàlla jumul lu mu def xam na ko pour am lu baax il faut lu bon pour mu lu am lu baax pour mu am euh, sens dëgg il faut nga gis lu bon d'abord bon ak baax nag ñaari yooyu yàlla moo ko fi indi ci àdduna bi opportunité la noir yi liñ daj fii ci Amérique ci slavery ba ci civil rights movements ba ci Jim Jim Crow ba ci lu nekk ci racisme ba yàlla dimbali leen tey fii ñun ñu mën fi ñëw di fi def lu ñu fi naan ndax Obama mooy président bi. ëllëg aussi bu fi jógee Donald Trump bu ñëwee tamit la vie continue mais c'est une opportunité pour la nouvelle génération et puis pour politiciens yi ci àdduna bi yëpp ñu xam ne ñuy voté dofatuñu votetuñu parce que ay politique parti politique mais dañuy voté parce que seen intérêt personnel yi yi nga xam ni politique nekkatul pour euh, ay polls yi li ñuy wax bon euh, sondage yi li lañu wax database yi li lañu wax sondage yi li lañu wax non non non politique c'est c'est la vie des gens that's the personal lives of people that are unsafe bu ñu demee ba comprendre loolu rek dañ xam ne lu nekk possible na fi mu nekk nii ci politique ci àdduna bi te yemul Amérique rek fépp la jëm ci àdduna bi politiciens yi nar a nangu réew yi ci àdduna bi kenn du leen xaar ñooñ ñooy ñëw pour changer ji ci àdduna bi malheureusement ñi ci bëri dina ñëw comme mel ni comme Donald Trump ci discours yu mel noonu mais dañoo war a analyse discours yooyu lu tax nit ñi di ko wax you dama bëggoon waxtaan ak yéen ci li ma doon def sànq ci anglais parce que xam naa ne sama mbokk yi nekk Europe amin Afrique surtout Sénégal sama réew jaaxle nañu ci lu xew fii mais dama leen di wax ne buñ jaaxle ça fait partie de la démocratie fii ci réew mi gis nañ fi Ronald Reagan mu gënoon a dof suñu waa ji gis nañ gis nañ fi Bush deux fois euh, mais après lu ñu gis you know natt yooyu après bi ma amee la ñu yàlla indil président Obama li mu mënoon def na ko. même amutoon Sénat bi ak congrès bi mais xeex na donc aussi ñun euh, africains yi fi nekk nañ lu bokk ci politique bi fii pour que ëllëg suñu doom yi fi juddoo ñu mën a am kàddu ci biir réew mi mais ñun représenté wuñu dara ci politique bi fii rien parce que duñ impliqué wu te pour ñu dimbale suñu réew Afrique ak Sénégal ak yeneen réew yi fen yu ñu jógee il faut ñu impliqué wu ci li xew fii parce que mënuñ dëkk ci biir réew ba pare gis nekk ay spectateur bu élection yi passé ñëpp di wax mais kenn du dem voter kenn du nekk ci biir parti it bu def ay du volontaire du xeex ci biir parti pour am ay position amuñu congressman amuñu député amuñu sénateur res espagnol yi am nañ ay sénateur am nañ député ñu ci maison blanche ñu ngi fepp noir américain yi ñu ngi def la même chose boo demee ci même asiatique yi am nañ ay député ay congrès sénateur fu nekk ba mu des africain yi on est rien on n'est pas représenté dans ce pays là ñi fi nekk kës néew di yëngatu ci politique dañ suñu seen biir dañuy xeexante suñu pour ñu am représentant ci dëkk bi nga xamante ni politique àdduna bi fii la daje fii mooy àllikale parce que tey jii àdduna bi yëpp kenn nelaw ñu ngi xool lu xew bi avec c'est parce que you know géopolitique àdduna bi Amérique moo ko contrôlé donc bu ñu fi nekkee ñun am chance nekk ay citoyens aussi nañ xeex bokk ci affaire yi fii voilà donc loolu laa bëggoon a wax ak yéen rek pour wax leen ne la vie continue rien ne va changer il nouveau président nous tous les Américains on va on travaille pour changer les choses pas seulement ici mais au niveau fii du dëkk buur boo xam ne li day nekk président rek suba mu dem créer guerre wala jàpp ko ko neex dugal ci kaso wala ku marche mu tëj la dàq la nangam nangam loolu amul fii quoi yaa ngi dégg mën na wax ak waxam eh, eh, bi muy def élection mais mënu fi suba mu jël nit ñi def ay avion di yóbbu ay nit donc yéen ñi fi amul kayit yooyu il faut pas ngeen xalaat affaire boobu seen doom yi fi nekk ñaanale leen jàmm rek la am rien ne va se passer la vie continue Bush ñëw na fi deux fois yu know après dara mujjul am donc laa bëggoon a wax ak yéen pour dalal seen xel. que euh, nit ñi fii sax yëgatuñ ne élection amoon na depuis dem donc fàtte nañ bu ñu ci leneen quoi donc politique bi fii moom bu ñu paree pare nañ ci donc bu leen jaaxle fii jàmm rek moo fi nekk alhamdulilah ñi bëggoon a toxu di dem ay Canada ak yooyu foo dem aussi fekk fa ay problème donc bu ngeen toxu aussi seen waa koñ ñi ngeen toxu sax duñu yëg na génn nga ci réew fii 300 cent quelques millions ñoo fi nekk donc bu leen gëm ay affaires yooyu quoi you li tax bu suñ dëkk neexoon yenn neex yi duñ ñëw fii di toxu di ñëw fii Amérique donc nañ fi góorgóorlu bokk ci ñi diriger réew mi pour ñu mën a dimbale suñu dëkk bañ bàyyi gannaaw ku nekk mën a contribuer loolu laa bëggoon a wax ak yenn wasalaam di courage yàlla defal ñu jàmm fii ci Amérique ak suñu réew ñu bàyyi gannaaw suñu mbokk yi Sénégal macha allah jërëjëf salaamaaleykum.